وعليكم assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi yu góor yi ak yu jigéen yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara yëpp di nemmeeku njaboot gi balaa ñoo sori di leen jotalaale nuyoo xalifa bi xaj Abdal Aziz akuk teeroom ko li ngay jaarale nuyoo bi pour mu mën a agsi na ma ware ci zilzala yi nga xam ne nitu yàlla yi ñu tudde ahlu tasawuf fi dina ñuy taamu lu jaam di yebal lu mu doon pour mu jëme ci boromam bu réerewul zil salaam mu jéem ko caa jaarale dana jur ak àgg gu àndul ak tàkk ak saa sax sa vivre bi xataa sa wazifa sooy tàmbali dina rafet lool ci jaadu ànd ak sax du lu muy réere moom borom bi xamal ko ne ko vérité bii may jàng ma nar a jublu pour jàng ko ci am na tijaan yi daal balaa ñu koy jóg war ngeen a xam ne kuy askane boppam ci moom nga war ngaa takka njemb ndax daraam lu ñu yëngal fakkatal am ca day daal di doon mustaay te lii bu dul woonu ñàkk yaafus doon naa sonni ndax man dama naroon daal di commencé rek ñeexetu ko bëgg nañu loo yebal looy yeb la ca yàlla lu mu doon te nga bëgg àgg ga du am benn fakta nga bëgg àgg ga du am benn fakta dinañu soxla ca booba nga tudd sa silsila moo tax ñu bëgg taalibe bu nekk war a xam silsilaam ma wax ne atta booy wér sooy tàmbali ci sa yéene du doon sax lu yàlla réere waaye nga ne fas naa yéene wér de sama wér du tàkkusaan lii ngir natal kóllëre gëm a defante woon ak diw tudd ka la ko jox ngir natal kóllëre gëm a defante woon ak diw ci at sàngam ci weer sàngam ci palaas sàngam nangu wér wérdu woo xam ne maa ngi ko jële woon ci alaaji Abdul Asiis ca Tivaouane ca le vingt quatre janvier mille neuf cent quatre vingt deux mu jële woon ko ci Sidi Hadj Malick baayam mu jële woon ko ci Mayoro Wele nijaayam mu jële woon ko ci Omar Fouti mu jële woon ko ci Mouhamadou Xaali mu jële ko ci abul abbas ahmad tijaani mu jële ko ci maamam seydi wujuud liggéey bu ma liggéeyoon ak moom jaayanteeg moom ne ko dinaa jël tariqa bi di ko doxal ci ni mu ko santaane subaak ngoon loola laa lay fàttali yow yàlla ne waruma trahiruma maa ngi yeesal sama bos ba fii ma toog ne onze billahi min asheytani rajim dóor a ngir xataa moo tax bëgg nañu taalibe bu nekk lu mu gàtt gàtt xam-xam xam ki ko jox leen kooko ka ko ko jox kooko ka ko ko jox ba ca Maolana Seex Ahmed Tijaani ci maamam daj moo tax ma ko nuyoo bi di ko jàngale ci alaaji Abdaas Géy mi yàlla jaarale xew-xew bi ci mu nekk ci bopp mbooloo mi ko yëngal loolu maa kilifa yi fi daje ñoo boole nuyoo boobu jaarale ko ci moom mu jotali lu leen ko moo kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jamono ci kanami mbooloo bi di leen ziyaara ci sama watu bopp ci sama wàllu bopp nag man rek sama bopp bu ñàkk doole bi bu ñàkk wéeruwaay bi maa ngi koy gërëm ngërëm loo xam ne dara du ci àddina dara dara aalimul xay bi wëhëdës xam na ne dara du ci àddina farloom soppuk lislaamam fonk tariqa bi màggal kër gi ci laa ci am ci moom xol bu sedd bu jar feeñal sama ngërëm ak képp ku dox ay tànkam xew-xew bi nag bañ ko dalee yëngal yàgg na dugg na ciy nopp bind nañ ko ciy këyit rajo yi yàbbi na ko yàlla dimbale nañu it damuy tey dimbale nanu ba muy fii dimbale nanu ba muy ñii ñu toll nag ci nañ koy war a waxe day daal di laaj nag déglu déglu déglu déglu la ma gën a loon mooy ñu am ay kayit waaye am nañu sax kayit parce que rajo bi kayit la télé télé na mu tuuti yu yu ndaw yi jël magnétophone yi kayit lañu waaye fonk mbir mi ngir niñ ko tuddee tax na ma def ci peen yu ma néew a def ak li may bari bari kaar dajeeg doomu aadama yi ci fenn ba doon na ma ñori torop ñu xerawlu parce que ay njëriñ a ngi ci bëgg naa waxtaan ak yéen tuuti ci sariya ak luy sariyaatu dinaa waxtaan ak yéen lu yaatu ci tariqa ak luy tariqa ci biir waxtaan ak yéen tariqa laa leen di wax ni sëriñ war a mel ci ni ñu bind ba ki nga wétt bu melul noonu nga jéem a teggi sa loxo balaa def waxtaan tuuti ci aqiqa yaakaar naa ne day war a daje nit kilifa gi bindee ci war a rëppoo ba xalifa bi ñëw yal na ko yàlla doole sàmm sàmm kilifa gi ne yëpp dañu nekk ci barab bu lëndëm bu ñam bu bari ngaañ te ngànnaay amul tors amul niitukaay amul ñu bëgg a dëgmale foofu jëm ci kër gu ñu xamul fu mu ne xamuñu na mu mel xamuñu fu ñuy jaar ba dem ca gol bu ñuul bi ñu ne bu bari ngaañ bil te lëndëm sérieux ñu nekk fekk loxoy neen moo tudd àddina kër gi ñu bëgg a fanaan yi mbaa ñu ind gi fa ndeem yoor yoor nga fi jóge nga da nga fay indi ji ndeem da nga fi jóge timis da ngay fanaani kër googa la ñu xamul fu mu ne xamuñu na mu mel que liggéey kër gi nag te bëgg ñu dëkke ko tudda Maulana tabaraka wa taala muy la benn ingénieur bu ñuy wax rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam pour mu xotti ay direction ñu jëm direct ci kër gi du am virage du am rond point du am angal dina dindi lu ciy paax lu ciy xeer luy fakkatale lépp luy doo daan ba cachet dina ko dindi ba mu tàlli rangale it lamp yi ba biir kër gëpp litte ko ko nag ci bouquin wa ma arsalnaaka illa li tubayina naas ma unsila in dara taxul ma gële-gële dara dara dara du pour nga dem dundalee ma nit ñi du pour nga dem yokkal ma taw bi yooyu pare na du caagee nag pour gàncax gi li ñu war a génne jaam yi di ko dindee taxul dafa am bouquin bu ma bëgg a yónni boo xam ne yow rek yaa mën a nekk interprète bi ba doom aada yi mën ko dégg wa ma arsalnaaka illa li tubayina linnaas ma unsila yoon woowu rasulillahi fàkk ci digte boo xam ne tabaraka wa taala moo ko ko digle moo tudd sariatu am na jamono sax am ñuy tudde sharia bi rasul ci boppam di tudde yëpp borom yëpp yëpp léeg-léeg nga dégg allahuma salli ala sayidina muhammadin sharibi shariati wal burhan am déet delluwaat na ba fekkoon mu sëgg abal leen abal leen ma seeni nopp si daaj maa léeg-léeg mu di ko wax rabbi daan na ko wax rasulullah daan na ko wax abal leen ma nopp yi tuuti feeg deux heures bippe xel yi it jéem koo gaare ci bañ koo bàyyi nopp yi des fi am na benn saar ci xaaj kaw bi lañu di ko wax suratul isra saar bu siiw la ndax xew-xew bu rëy daf ci am muy guddi gi Moustapha gise jéeg boromam saar woowule aaya ya téeméer laa fukk ak benn onze la am na ci benn aaya bu am solo alquran yépp am solo aaya ba comme saar bi nee naa la cent onze la booy rëbb aaya boobu seetal neuf ak dix neuf ak dix ci saar bu ñuy wax suratul isra ñenn ñi di ko wax suratu bani israil soo demee ci neuf ak dix ku ci yor kaamil ayaan ca boo xam ne moo jeexal bépp mbiru doomu aadama bu nar a texe ëllëg ca ba mu juddoogul ba ba mu juddoo ba ba mu feree ba ba mu magee ba ba mu feebaree ba ba mu sukuraatee ba ba mu dogee ba bañ ko jullee ba bañ ko yenoon ba bañ ko sallaxee suuf wàññeeku ba ko ko moom rek ak boromam mu retourné nag ñëw aay bi wax la yow yaay kan wax la li la war ci sa bopp wax la li la war ci sa aleel wax la li la war ci sa temps wax la li la war ci sa dëkkaale wax la li la war ci sa soxna sa doom sa mbokkam jullit ak loo yor lu mu doon ak daal séq gu yeewoo ci sa kër sax ak dox na seen diggante kilifa gu mag bu ñu yaakaar ne na inna laa yaamuru bil adli wa ihsani wa ifaai l qurba wa yanhi an ilfahshai wal munkar wal baxi yaxisakum laallakum tadakkarun nee na bu alquran yemoo noonu képp sax mu doy ndax amul benn aaya ci alquran bu mën a dajale lépp nit noonu te gàtte noonu yu bonam ak yu baax juróom benn yëpp la yàlla tudd ñett ñi da ko santaane bëgg ku ko def ñett ñi def ko tere bañ ku ko def yi mu bëgg ku ko def nag bëgg ko yem ci def ci digge teraanga yu rëy yi mu bañ ku ko def bañu ko yem ci def ci tëkku ay duma yu foor waaye bali ci ihsan benn waay bu baax daf ne suñ ihsan ne na balaa ngaa bokk ci minal muhsinina yi alquran di tagg ñii daal yàlla ni ñii daal ñooy ñi nga xam ne seenu jëfin rafetoon na nee na lim boobu doo ci mën a bokk loo doon doon góor doonte defante nga njëkk duwaate góos defare ko ci kanam ak day joor kaw suuf te ginaar boo yeewu manqué du tax nga bokk ci minal muhsinin waaw sunu borom lakk na jullit bu jigéen bu doon góor lu tax mu lakk ko moo di muus mu mu yaroon sàggane ko utal ko kaas te du ko jox lekk muus mi génn lëbbi fàdd lekk fekk ko fa ba mu dee yàlla delloo ko jaamu yàlla am lakk ko ngir muus ihsaan suñ borom dugal na jigéen ju ñàkk diina ju néew yiw àjjana lu ko ko may xaj bu mag amul baax amul teen amul goj mbooyee mi jàpp ko mu tàllal làmmiñ wi di yëkkat di yëlkat di yëlkat ndaw si séen ko ci tàppi teen bi xam ne dafa mag mu ni musaram tareet fas ko ut kopp def ko baak root wëgg xaj ba ca la demee àjjal comme lakk nañu jullit ngir ñàkk a toppatoo muus teral ku néew tiyaabo ngir toppatoo ab xaj moo tax njëkk yàlla soow ci lu bari imaamu Shafii ak Sibli ku ci nekk martaba ba laa tax a àgg ci yàlla ci bàyyi ma la jóge defanteeg moom njëkk kii dafa romb muus moo xam ne jamono sedd la mu naan kat kat kat ci mbedd mi mu xool ko yërëm ko muus mënu la jaaru mënu la jënd dara te am na rox mu fab ko laxas ko ci tati jàllaa benn ba jant ba fenk mu cëppeel ko mu dem ci la ko yàlla ubbi mu àgg xaat te placé eulilaay te laa na garaati yonent kii toog na di jàpp sol mantu bu bees bu war a jël deux cent mille francs su mu toog mantu bi yiif lallu yaa gannaawam mu jàpp bay àggal gestu nii seen muus mu tëdd ca cat la di nelaw buggu la dog nelawi muus mi di xool montorom ba waxtu yu bëgg a jeex te doyee muus mi mu fab saatu su bees na tat fit la muus mu tëdd ca mantu bu bees ba bàyyi ko moom di muus moo tax ñu ne lu sa njëkk yaay yaa te bàyyi may ci kër gi gestuwa leen sa njekk du mën a tudd ci yoo doo doo mën a yéeg ci garanti ña ñu tuddee ñu waroon njekk yi ëllëg aye boobu daf ko indi mu ne nag suñ boromay wax inna hada alqurana yahdi lilati hiya aqwam tees bangu booba muy teel daf nay xama fande xama ban bible xama ban bouquin yàllaay wax waaye inna hada alquran nag bii bii Muhammad di yor muy seen bos di sunu bos boobu day moom yahdi dina tegte li letti jëm ci jikko ja nga xam ne ak yoon wa nga xam ne aqwamu moo gën a jub ci yoon wu doomu aadama suubu juróom benn point nag la ci wax jàll inna al qur'ana yaadi lilati hiya aqwam waxoon naa la sànq bi may tàmbali ne l'israël ci la nekk ci neuf ak dix al qur'an ñëwul pour ngir arab donte ci làmmiñi arab la wàccit ñëwul ngir arab alxuraan ñëwul ngir pays màkk rek donte fa la màkk wàcc alxuraan ñëwul pour at mi ne bi juddoo mu wàcc ci rek déedéet dafa ñëw pour xeet yëpp arab ajam ci gàttal dafa ñëw pour réew mi yëpp màkk Afrique pour gàttal dafa ñëw nar fee def mu ngi nii di xeex di xeex ba xeex ak fukki siècle ak ñeent tër leen nar a des di mbër mu ngembam dul sax ba ñu fi des ñëpp jeex mu doroobam ko fekk yàlla ci melo boobu lay des ba faw moo lay won nag xaqida premièrement yahdi lillati aqwamu fi l aqidati wa yahdi lillati aqwamu fi l ibadati wa yahdi lillati aqwamu fi taawuni wa yahdi lillati aqwamu fi taamuli wa fi taaq wa fi taha wa fi alaiqi wa fi alaiqi wa fi alaiqi wa yahdi lillati hiya ahsanu fi lkashafi alxuraan la mën a guider nañuy gëme wan leen li ñu ci gëm boo xam ne bu ko passé ngëm yàqu alxuraan la guider di la wan nañuy jaamoo bu la bàyyi sa bopp nga jaamu njaamu wu dul jëriñe alxuraan lay guider na ngay jëfanteeg koo dëkkal la ko dale ci jabar ak doom ba ca jàmm su la bàyyee nga jaar ku jaarul waxet bi borom alquran dañ na ba wax la ci suuratu Yaasiin ne lu ñëw waral man kaana ayya kooku ay juróom benn fukk ak juróom ñeent ba juróom ñaar fukk moom ca la nekk man jooju man li yundira am na ñu jàng loolu am ñu jàng li tundira ta tombe géej yaa gi nag ba alquran daj ñetti place nga koy juwaale mu jur njaaxum lu ko mooy benn nga wax tundira man man man jooju lan la ah umum la li jamil uqalaay min al insi wal jinn حينئذ تعرف بأن القرآن وجه معنى من للضمجرة وقل من القرآن هو للضمجرة من من مومو dafa matale dafa romancé dafa romancé képp ku mësool te dofu la di nit mbaa ngay jinne comme nga ne maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni ci nga dal di dégg ne nag alxuraan ñëwul pour benn jamono ñëwul pour benn dëkk ñëwul pour benn xeet ñëwul pour dafa ñëw pour toujours ñëw pour ñëpp man ibrahima alayna wa ala nabi alayhi wa ala nabiyina afdal salatu wasalaam sunu borom tabaraka wa taala am na saar bu mu ko tuddee am na fu mu wax ci furqaan ne déedéet ñëwul pour kenn dafa ñëw ngir ñëpp li yakuna nadiran lil alamina suratu furqaan kon nag bu lisraay ne alquran moo mën a tette dëgg-dëgg nit dëgg-dëgg tette ci juróom benn histoire yi ko war a séq premièrement aqida deuxièmement ibada ñetteel taamul ñeenteel bi di adabu axlaaq benn bi di xëxës moom rek ku mën a tette nit ni mu war a fase pas pasu gëm ak melowa na muy mel ni mu war a fase jaamu ak jaamu nañu koy defe ak ni mu war a doxale ci defin diggante ma moom ak nit ñi ak teggin yi war ci moom ak jikko yu rafet yi war ci moom ak nettali boo xam ne benn fen du ci am ak benn jaaxle moom rek moo ko mën alquran rek leneen loo sóobu lu dul moom dana jàng ak yow boo ko sóoboo nag dina jàng dina ànd ak yow lelati la inhirafa fiha wala cheyqa an sabili alxaq lati jaa biha al anbiya walmursalun min ladun adam illa nabiyina muhammad sallallahu alayhi illa an qutimat risalu bi muhammad rasulullah alayhi sallam alquran moo la mën a jaarale la ka dale ca maam aadama bañ ko yónnee ba keroog bi ñu fermé yónnante gi ci darajey rasulillahi ak ci juddoom lu jàng benn yoon nag lu fi yónnent mu sa wax mbaa mu santaane ko mu ko jóge ci yàlla alquran du ko jéng benn jamono moo lay songa nag wax la aqida bi nga xam ne ci nga war a limité ci sa gëm moo lay song wax la sa jaamu yàlla na muy selle jaamu yàlla gi na muy doon moo di taa boo xam ne dafay ànd ak ifham wa muhabba liman laysa lahu nadir alquran bale na am yahdi lilati yaqwamu moo lay tette yoon wi gën a jub ci jëfante jëfante ju àndu of du ànd a njar du ànd a nooneel du doon ci aleel du doon ci der du doon ci askan du doon ci deret alquran lay teg ca yooya lu ko may nga tarxiis ci sa biir jëfanteeg nit dugal ca urus mbaa nga dugal ca lu ñuy wax roz te moo di fanaanal marchandise am mu mees bu bees bu xëy nga jaxase leen jaay caaf lu fanaan nga xëy caaf caaf lu bees jaxase ko la fanaan jaay ko moom la du jur benn nooneel ndax daf la wax ne loo moomul bàyyi ko fi du jur itam genn yàq derek nit ndax dane bul tudd góor fu mu nekkul mu wax lak ne l'ictimaiya ak fardiya yëpp alquran na ci mën a gét tett nit jamono boo nekk ci biir groupe wala société wala nga nekk yow kenn nekk goo xam ne fenn du ca nekk dew du ca nekk jeexal ak nooneel du ci nekk alquran moo di ki nga xam ne moo di ci mën a tegte da nga jàll ci moo lay wanit alaiq yi nga xam ne dafa ne ci sa loos diggante sa kër sa njaboot sa dund sa dee sa jabar sa passé sa edd sa ndono sa testament ak nooy war a yore jirim ak nooy mën a maslante ku defe ku bopp ba feesul ak koo xam ne wallaay bopp ba fees na waaye dafa nekk daif kooku alquran moo lay teg ci yoon wa ngay jaar ba yeddeel lu la ci dal moo ñëw nag fes dell ak nettali boo xam ne benn du ci fes dale di nettali ca la maam aadama ba di nettali bés ba ñuy taxaw ca kanami yàlla biibal yëpp alquran ci xal la yoon woowu nga xam ne njuumte du ci am xarxal du ci am su fekkee déglu nga ko topp ko góor gu dëkk ci dëkk am lu mu woote am ñu ko weddi am ñu ko dëgg ba ñu ko weddi mu jaral leen pour seen deret ñi koy dëggal mu jaral leen pour seen deret góor googa taxaw ci diggante ñoom diggante milieu yooyu ne leen bu ginnaaw léegi nangam dina am mu am maanaam mu wax lu amagul na leen dina am te dab ba mu tudd du dundam nar koo fekk te fasul yéen a toog am de déggu leen ko bu baax taxaw ci sa diggante soppeek say noonu di woote lu ñenn ñuy wedd ñenn ñi di ko saxal nga ñàkk looy wax ne leen nangam dina am te amagul nga ne nangam dina am te fii lay amee